jërë ngeen jëf dorog bu bari ba ñu jàppoon ca poorum Dakaaru ma ngay gilliwaat l'observateur moom la xëyee ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne coow loolee ndekete kenn fàttewu ko ndax Samba Sall juge d'instruction bu premier cabinet gannaaw ba mu liggéey ca dossier ba ba buukale ko ci la parquet bi santaane ñu taxawal ab commission rogatoire ngir ñu dem déglu ji doomu Italie yeeg doomu Allemagne yi ñu doon tudd ci yëf yi te mayoon leen ab liberté ñi jàppoon ñii ñu may leen liberté provisoire ñee ñu tegoon leen ci contrôle judiciaire ña ci des ñu tëye leen ci kaso bi mbir moomee nag l'observateur nee nañu yoon di justice ma nga ca di ko lijjanti ak Pastef gu mat sëkk njiital parti Pastef di Ousmane Sonko ay mbiram ma nga ca yoon journalisé ko moo ko bind ba xamal ñu ne tuumay viol ak menace de mort la ko sennas ndaw su sant Sarr di toppee ba tax mu plainte ko ci section recherche bu gendarmerie ndaw stress bu dul jeex la may def damaa dem léegi sax ba seexlu sama yaram te mënuma ko wax fenn ndax daf ma menacé ne ma lii bu jëmee kaw dama lay rey moom xale bu jigéen bi tuumaal Ousmane Sonko ak femme bi moom salon de massage bi mu doon liggéey les échos nee nañu gendarme yu section recherche yi déglu nañu leen démb ci lu yàgg ki ñuy tuumaal viol ak menace de mort di Ousmane Sonko yéen bi nee nañu bi ñu ko laajee li mu leen tontu moo di moom Ousmane Sonko yëgugul ab plainte bi ko gis ci xët mu njëkku leneen coow lu nar a yoon coowal ARTP ak xëy nanguwaat licence ba mu joxoon Expresso ca la nekk li ko nar a waral bokk na ci défaut investissement retard yu mu am ci 4G bi ba ci ay arrière lu toll ci juróom-ñaari milliards ndax Expresso du fi jaare faatu ci réew mi laaj la buy sampee ci xët mu njëkku yéenekaay bi Cheikh Omar Anne ministre enseignement supérieur lii quotidien nee nañu wedd na li Mary waxoon ci cité du savoir ga mu doon wax ca Diamniadio keroog la woon ca télévision Futur ñu doon dingaan vaccin anti na a bi mu ca jam ñaajo nee moom Cheikh Oumar dem na ca jam ñaajo waaye gisu fa dara luy niroo tax tabax ba tabax jëm ci cité du savoir du ab miir du bâtiment du sax ay xeer professeur Souleymane Bachir Diagne xëy na séq waxtaan wu yaatu ak waa l'observateur waxtaan nañu ci mbiri jaari sow waxtaan nañu ci réseaux sociaux yi waxtaan nañu it ci coronavirus bi ak ñàkk yi ci séntu coronavirus boobee ank dina kay nee nañu ñi mu indil ab coono bu dul jeex bokk na ci ñi amee feebaru cancer ci réew mi ndax covid bi tax na dépistage yu ci daan def dafa wàññeeku tax na it ba ñuy amee cancer bi tax ñuy def seenu traitement ni mu waree jeneen joote ju ci dolleeku lancé xam ne ko ci enquête moo di nee na malade yi ñu ci bari guddi gi ci lañ daan faral di ñëw ngir mën a faju te loolee mënatuñu ko li coronavirus bi di def ci réew mi ak bakkan yi mu fi jël la si ne kay nee nañu li cancer bi di rey moo ko ëpp ndax ci atum gi ñu génn feebaru cancer bi faat na ci réew mi juróom-ñaari junniy doomi aadama ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett comptoir